أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit yi góor ak jigéen mag ak ndaw yéen ñépp boole seen ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara ànd ak di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmandeem suñu waxtaan tey jii ñu ngi jëm ci at tawba wal istixfaar tuub dellu ci yàlla rëccu say ñaawteef ak sàkku sunu boroom jéggal la say bàkkaar insha allahu taala ba ñu see tàbbi ngeen may ñu sànnante ay baat yu gàtt jaar ci tànk sunu sëriñ bu tedd ba alxaaj Maajoor Sise radiallahu taala anhu suñu ma sànn woor ba toll fii ci guddi ñaar fukki fan ak juróom ñaar yi dana yëkkati ay baat jëmale ko ci mbooloo mi ay baatu sant la sant yàlla ci kàttan gi mu ñu may ba ñu tàmbale ko woor ba fii li si des yan nañu ko eggaleeg sunu sago te yan nañu ko yàlla nangul te suñu ko nangulee yan nañu ko fulandil ay tuyaaba te yan nañu ko teewe ay déwëni déwëni déwën at mu jot fekk ñu gën a jub gën a ragal yàlla gën teg sunu tànk ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal nañu ko yàlla may ci barke alquranul karim fa tabarakallahu doon jataay boo xam ni ñoo ngi ci ànd dundal sunna naafile yi mu di ak waxtaanu diine yi tafsiru quraan yi di si wéttalante mu doon suñu dàqante koor yeesalante fàttalante ku nekk ngi naan sa dënn ak neexoon at mi yëpp di weeru koor ndax ñu mën ko dunde nii fa tabarakallahu di ci gërëm bu baax mboole seen juma ihsan ñi ànd ak ñun ci liggéey bi rawaate na ñi ànd ak ñun di jiite naafile yi ak waxtu yu juróom yéen ñépp ñu ngi di ñaanal yàlla wér ak gudd fan ak yàlla may leen ijaaba seen taxawaay rafet na jub na sell na ñi amee nodd yi ci jumaa ji di nodd heure tabaarakallahu heure bi du yées du ëppal yi la yépp farlu la ak dogu ak itte ñi amee responsable ndogu yi joxe ndogu bi ci jàkk ji macha allahu taala ak seeti weer ak seeti heure dog ànd ci ak farlu ànd ci ak itte ba lépp tegu na ci yoon macha allahu taala di gërëm xale yi nga xamante ni ñoo amee service su moo xam wasifa bi la xadaratul juma ci jàkka ji ak ñi amee nettoyage bi di fomp di bale ba kuy julli si nga nekk ci jataay boo sa xel dal sa xol sedd ñi amee tant yi tantal ajjuma ngir ku nekk mën toog tabaarakallaahu te naaj wi du la gaañ ak dal dal bañ dal sa kaw ñi amee sécurité bi aar jàkka ji aar mbooloo jàkka ji macha allahu taala ñi amee communication bi di jàllale ci xarala yi ba ñeneen ci goxu adduna bi mën ko topp moo xam ci péritel bi la moo xam ci Ihsan TV la ak ci mboole seen station rajo yi di gërëm rajo Saint-Louis ci station régionale bi fi nekk directeur bi ak ñi koy jàppale ba ca kilifa yi ca Ndakaaro ci ni ñuy yaatale xadaratul ihsaan am ay émission di ko jàllale ñëpp di si jariñu yal na yàlla dafa leen yiw ak prospérité seen liggéey rajo FM Teranga El Hadj Alioune Badara Diagne Golbert moom i tamit mi ngi ànd ak ñun ci liggéey bi ñoo ngi koy gërëm di ko sant di ko ndokkeel it taxawaayam ci armeel yi la mu cee def at mu jot yal na ko yàlla nangu yal na ko yàlla gërëm rajo municipal moom i tamit ñi ko amee ñoo ngi leen di gërëm ñoo ngi ànd ak ñun ci liggéey bi ni ñuy ñaanale ak di gërëm ñi amee rajo Dunia fii ci Ndar ba ca station yi ca Ndakaaru ak ci biir réew mi di jottali kàddu lislaam yi ci masjidul ihsaan yann yàlla fay leen yiw may leen baraka ak prospérité ñi nekk ci réseaux sociaux yi tabaarakallahu di jóge fii ci xadara bi di séddoo waxtaan yi ak mboole seen adduna bi ñëpp di si jariñu ñoom tamit ñoo ngi leen di gërëm di rafetlu seen liggéey soxna yu tedd yi macha allahu taala ñoo ngi ànd ak ñun guddi ak bëccëg wante ak yar ak teggin ak dal kenn mësu fi toog ni soxna yi noppi leen wala wàññi leen seen baat ànd ak seeni njaboot tamit ay xale yu ndaw di leen jàngal yar ak tegginu lislaam yar nañu mag ñoom ñëpp yar nañu barkeel te tegu ci siraatal mustaqim te lislaam muurloo leen boroom ndogu yi jóge fu nekk indi nañ fi lu nekk su dee dërëm indi nañ ko fi su dee togg ñam indi nañ ko fi su dee tàndarama indi nañ ko fi lu fi waay indi egg si na sunu loxo macha allahu taala teg nañ ko fañ ko war teg yan na ko yàlla nangu te mu bijji ay xasanaat yu bare ci yéen insha allahu taala fa tabaraka allahu yan na yàlla nangul ñëpp yan na yàlla nangul ñëpp yan na yàlla fajal seen ñëpp seen aajo ndaw yàlla def leen mag ay magul lislaam yu barkeel yu jub yu ñoŋ yu déggu siraatal mustaqim mag yëpp yal nañu fi gën a yàgg di gunge njaboot gi mottali seen yéene ak seen mébét insha allahu taala waxtaanu leelatul xadari nag sëriñ alxaaji maajoor siise radiallahu anhu dafa waxtaan boo xamante ni dafa tumranke lool ëmb xam-xam ëmb leer daf ñuy neex at mu jot ñu ñaan yàlla ñaan rajo yëpp ñu teg ko moom fa mu nekk dana ci bëgg dana ci am tuyaaba mais ñëpp danañu jariñu ci baatam bu tedd bu sell bu dal ba ak xam-xamam kon ñaan nañu rajo yi insha allahu taala ñu teg ko jaar ci réseaux sociaux yi ñëpp dégg kalamam bu tedd bu matale ba wante ak baatu leer ga ak xam-xam bi ëmb laylatul qadar ñëpp jariñu si yal nañu ko yàlla fayal jaza al muhsinin suñu sa tolloo tamit seentu weer dëgmal na naka ñëpp def seen itte sunna la tabaarakallahu bu ñu ko sàggane bu ñu ko xeeb yal nañ si yàlla woon lu sedd xol ñëpp àndandoo mànkoo àndandoo bennoo mu di jàmm réew mi jàmm lislaam bi ak bennoo xeet bi suñu yàlla mayee ba julli iid insha allahu taala masjidul ihsaan salaatul iid danañu ko taxawal ci 9 heures yal nañ ko fekke tal ko te rafet fekk yin yal nañu ko ndokkee ren at yu bare bare bare at mu ñëw gën a rafet gën a màgg gën a barkeel ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam at tawbatu wal istixfaar tuub dellu jéggalu bàkkaar yi yàlla moo ko wax ci alquran sant ko jaam yi wa tuubu ila allahi jamian ayuha almuminuun laallakum tuflixuun tuub leen seen ay rëcc rëcc yéen ñépp ngeen dellu gannaaw ca da ngeen nekkoon ci lu jaaduwul ndegam gëm ngeen yàlla ngir nga yàlla yërëm leen yërëm leen ngeen texe kon mbokk yi tuub mooy dellu gannaaw ci loo xam ni sharia bi bëgg ko diine bëgg ko ngor rafetluwu ko te nga xamee ni loolu ngay dellu gannaaw soo ci saxee dafay sànq sa diine te mën a dugal safara soo ko bàyyee nag daa gën jóge sa borom te mën a dugal ajjana kon la lay sànq di yàq sa diine yàq sa ngor soreel la borom bi noo mën def ba sore loolu moo gën te muy tuub ak dellu si yàlla subhanahu wa taala sama borom nee nañu yaa ayuha alladina amanu tuubu ila allahi tawbatan nasuuxan yéen ñi gëm yàlla gëm yi mu santaane te gëm wéetaay ba meel na ngeen tuub dellu ci yàlla tuub gu sax tuub gu wér tuub gu sincère bu sérieux bu dëggu ci yéen nda bañ nekk rek astafurlah astafurlah astafurlah pare mel na la neex na nekk tuub bu dëggu tabaarakallaahu la nga nekkoon lu jaaduwul nga rëccu ko tegu ci yoon bu baax insha allahu ne soo ko defee de yàlla faral la say ñawteef faral la say bàkkaar dugal la ajjana yi gën a yaatu nga nekk si diggante pale yi ak dex ya géej gi loolu yàlla bu mu ñu ump chartu tuub nag ñetti la awaluha annadamu ala ma amila min almuxaalafaat jëkk charte tuub mooy rëccu loo nekkoon ci lu yàlla nangu gërëmul lislaam gërëmu ko ngor bëggu ko nga rëccu ko am remords ni man lii ma nekke jaaduwul lii ma def rafetul lii ma def lii ma jëf su ma si yàlla sanctionné fan laa jëm rëccu boobu tabaarakallahu mooy première charte tuub mu rasul sallam wax ni an nadamu tawbatun nee na rëccu rek doy na tuub waxaguloo astaxfirullah de mais sa biir xol sa conscience amatoo jàmm tranquillatul man lii ma def lii ma wax fii ma dugg nga rëccu rëccu boobu ni waruma ko woon def ndax ndax ndax yooyu nee na yàlla jéggal na la ci wax ko astaxfirullah kon mbokk yi nañ leen ci bool di rëccu nit dafa di rëccu ay jaar-jaaram ay rëcc-rëccam ndax loo xas ba def temps bi c'est précieux mënutoo ko dabuwaat kon da ngay fexe di rëccu naan lii waroo ma ko woon def tabarakallahu nee na alaamatu tawbati nag mandarga ni maa ngi rëccu dara mooy riqatul qalbi wa gazaaratu dam'i xol bu woyof ak rangoñ guy tuuru su yàlla nangu leen sa tuub xol bu woyof ku la tooñ nga baal ko jéggal ko da nga sax saraxu nit di ko baloo ak am na ñu mel noonu da nga egg ci mbaax ak ragal yàlla soo tooñee tooñ bu ñàkk solo da nga saraxu nit ki pour mu bal ndax xam ne xisaab ni mu foore ak ni mu diise waaw moo tax mu wax ni jaalisu tawaabiina fa innahum araqu afida na ngeen toogandoog way tuub yi seen xol dafa woyof dañuy gaaw a jooy ndax xalaat xisaab ni mu ni mu diise ku la xisaab fan nga jëm loolu kon lu jar a bàyyi xel la ñaareel bi tarku zalaati fi jamii xaalaati wa salaat la nga nekke woon def ko ba di ko rëccu ci ci lu jaadu loolu yépp nga bàyyi ko loo def xam nga ni li rafetul bëgguloo ko yàlla bëgg ko ngor gërëmu ko bàyyi ko bàyyi ko ci saa si jëlal décision ñetteel bi al azmu على ألا يعود إلى مثل ما اقترف من المعاصي والخطيئات nga def décision nga dogu ni lii ma rëccu lii ma bàyyi dogu naa bis na ko tey dootuma ko defati dootuma ko waxati duma fa demati duma àndati ak moom jël décision ferme loolu yi ñetti cër yi mooy tax ñu ni sa tuub mat na benn sëriñ bu mag dañu ko laaj lan mooy tuub bu sincère ak tawbatu nasuux mu di allaa yabqa ala saaxibiha atharun min almasiya la sirran wala jëhran nee neen tuub bi nga xamante ni ka doon tuub amatul souvenir ca la mu defoon dul feeñ dul làqu daf koy fàtte da nga koy bàyyi ba noppi fàtte ko doo fa jaarati doo ko xalaatati doo xalaatati lu si jëmati loolu nag liggéey dëgg la waaw foog nga la def lavage de cerveau raxas sa xel raxas sa xol ca la nga defoon ba di ko rëccu ñi lii du amati noonu la ñu di avancé lu ko may da nga lab ci bàkkaar rek wal iyaazu billah mu ni képp koo xamante ni sëriñ boobu mooy wax sa tuub dëggu na mais da ngay nelaw doo tiit doo jaaxle dara du la bett da ngay am la conscience tranquille daf lay wóor ñi tooñuloo defoo lu bon jubu nga ak sa borom kon nga mën yaakaar sa xel day dal mais koo xamante ni xam nga ni amuloo la conscience tranquille sa xel du dal su la bettee foo jëm la hawla wala quwwata illa billah kon loolu tamit mandarga tuub la bu rafet bokk na ci dogu ci bañ a delluwaat te la nga defoon te nga xam la ca nekk ci danger su la yàlla wuññee mbaa yàlla rey la ca loolee fan nga jëm kon nga jël décision ni la nga nekkoon bay def remords di regretter waruma koon def bu ci delloo ci mukk nee na loolu mooy tawbatu nasuux mu ni inna al abda yuxramu risq al kathir bi dambin yusibuhu nee nit yàlla mën na ko xañ wërsëg ci kaw bàkkaar bu mu defoon buñ ko baalagul xam nga ni kon xat-xatu wërsëg léeg-léeg mën na am bàkkaar moo la ko xañ kon mu war doomu aadama yi dañu war xëy di tuub di yend di tuub di fanaan di tuub ndax xamuloo kañ nga tey de tooñ sa borom ak kañ la force nga nga tooñ sa borom te yëguloo ko kon tuub dafa war nekk sunu soccu làmmiñ mu wax ni ida raayta altaxayura waltadayuqa fi lmaishati waltaasura fi risq wa tashacuba alxaal faalam annaka taarikun li amri mawlaak taabiun li hawaak nga toog ba mu yàgg adduna soppeeku ci yow ne dund bi xat lool nga nekk ci xat-xat pour am wërsëg pour nga lekk mbaa nga naan dangaa daj lu nekk ah nee na su boobaa nattal sa bopp wàcc nga yoonu yàlla kii la benn baromètre la benn seetu la boo xamante ni nitu yàlla yi ñoo man koo xool ko ni képp ku dem ba mu yàgg la nga amoon amatoo ko la la yomboon jafe la nekk ci xat-xat guddi ak bëccëg ne xoolal sa bopp wàcc nga yoonu yàlla wa ida raayta al aydi tasallatat alayka wala alsunu wa tanaawat alayka alzulma fi alnafsi walahli walmaal walwalad faalam annaka murtakibun lilmanaahi wa maaniun lilxuquq wa mutajaawis lilxudud nee nga toog ba mu yàgg lammiñ yëpp dar sa kaw di rek tooñ ci sa alal tooñ la ci sa ngor tooñ la ci sa njaboot di wax si yow lu jaaduwul yu baaxul guddi ak bëccëg nee na xoolal sa bopp wàcc nga yoon wi yaa ngi sa bànneexu bakkan lii lay nattukaay la boo xamante ni ku ci nekk soo wéeteeg sa bopp daa xam yaa di kan yal nañu yàlla xiir ci boppam tabaarakallahu te nangul ñu sunu tuub yàlla bari yërmande ci jaamam waxtu nekk mi ngi ñëw tàndal lay jooru yërmandeem soo baloo mu jéggal la ak lu sa bàkkaar rëy rëy ak lu sa bàkkaar bare bare ak lu sa bàkkaar ñaaw ñaaw borom bi ne wa man yaamal suu'an aw yadlim nafsahu summa yastaxfirillah yajidillah gafuran rahiman ku tooñ sa bopp jëf-jëf ju bon tooñ sa bopp tooñ sa boroom tooñ sa moroom gaawantu gaaw ni yàlla kat su ma jàppee ci lii fan laa jëm su ma deewee ci lu ñaaw lii fan laa jëm nga gaawantu ni yàlla daal yaay jéggalaakoon yaay bale tuub na astaxfirullah wa atubu ilay nee na ci saasi yàlla baal la jéggal la yërmande gii ku nekk war na ko saisir laa taqnatu min rahmatillah balaa àddinay jeex bu kenn découragé ak noo mënti mel ak loo mënti def ci xeetu bakkaar ak lu ñu la mënti teg ci xeetu daan yàlla nee na su sincère nga ni astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah alazim alladi laa ilaha illa huwa alxayu alqayum te mu jóge ci xol bu sell nee na yàlla baal la ko jégal la ko yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam kullu bani aadama xataa'uun wa xayru lxataa'iina attawaabuuna almustaxfiruun limaamu tirmise ka solo ne doomu aadama yi ay bàkkaarkat lañu yàlla moo leen bind te xam ni mat matuñu dañoo bàkkaar guddi di bàkkaar bëccëg di bàkkaar guddi ak suba teel nee na ñi gën ci bàkkaarkat yi nag mooy ñee tuub di jéggalu mu ni law amiltum alxataaya xatta tabluga alsama summa nadibtum la taaba allahu aleykum su ngeen doon bakkaar di bakkaar muy jalu di jalu ba nekk montagne ci asamaan nga rëccu ko yàlla bàlla ko nañu leen di tuub mbokk yi di dellu gannaaw ibnu umar ne radiallahu anhuma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñ toogee si jataayam waxtu wu nekk mi ngi naan astaghfirullah wa atubu ilayhi dara nañu wàññi lu tolloog 70 fois ci jataayam ci waxtaan rek muy waxtaan naan astaghfirullah wa atubu ilay moom sallallahu alayhi wa sallam kon mi ngi jàngale yoonu tuub ndax moom yàlla jégal na ko bàkkaar bu njëkk ak bu mujj mais mi ngi jàngal jaam yi na ngeen bàyyi seen xel diggante wax ak waxaat sax mën na am lu rëcc lu ci jaaduwul nga jégalu ko yàlla subhanahu wa taala ne su ngeen dul ko woon bàkkaar yàlla baleen fii rey ñépp indi yeneen xeet yuy bàkkaar di ko jéggalu mu leen di bàll ndax al afu ak xafaar yàlla ngi bale ak kiy jéggale cër boobu pour mu mën a feeñ il faut que mu am ñuy bàkkaar foog nga am nit bàkkaar pour yàlla turam al xafaar ba mën a feeñ mu ni su ngeen du woon bàkkaar ma dàq leen rey leen yéen ñépp indi ñuy bàkkaar di tuub ma leen di bal ngir xafaar mën a feeñ mën a exalté wu mais nag bàkkaar kenn niwu la nag bàkkaaral rek déedéet yàlla xam ne nit matul kenn niwu la nga bàkkaar de bàkkaar dëgg dëgg dëgg mooy laf ci bàkkaar doo tuub doo rëccu doo jéggalu doo dellu gannaaw sala alayhi wa sallam ne ma asarra man istaghfara wa in aada fi lyawmi sabina marra nee na kenn du wax bàkkaarkat ku def bàkkaar léegi defar ka léegi déedéet bàkkaarkat dëgg mooy ki laf ci bàkkaar doo tuub doo rëccu doo dellu gannaaw mais su la wóoree ni soo ko defee léegi ñàkk batu nit nga tuub similaire saa la nga defaat la nga defoon di tuub yàlla jéggal la ko ba mu di soixante-dix fois mais kii bàkkaar dëgg bàkkaarkat le grand pécheur mooy ki dul tuub du rëccu du dellu gannaaw lab ci ba defekk ci loolu yàlla na ump jullit tabaarakallahu mu ni man lazima al istixfaar جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب كيف كن نوصو تيس كروس فني لا فك يا استغفر الله استغفر الله واتوب اليه سوك منul سدد nga nan yalla ma yalla bal samay recc recc yima tay ak yima tayul yalla mako yalla jéggal ne yalla dan la gennel si so nekk ci xat xat dana la jaar genn way dana la bette wërsëg foo ko séentowul xanaa kon ngënee la ngi ci soo nekkee ci tiis mbaa ci xat-xat mbaa si njaqare amul lu gën a gaaw lu gën a for istixfaar jëlal sa dogu istixfaar junne suba junne ngoon bala muy yàgg insha allahu taala yàlla teggi la say tiis ak say njaqare yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam mi ngi dettali xadis boo xam ni buxaari ak muslim ñoo ko solo أن الله تعالى أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم على راحلته بأرض فلاة إلى آخر الحديث واجي تكي كرلا جل قليمم دفتي يبلم يب pour traverser désert bi dem ba ci désert bi am fu mu takk gëléem gi takk gu yolom tëdd di nelaw forbët ba mu tëddee forbët gëléem gi fequ rëcc dem yóbbaale provision yépp yi mu amoon ba mu yeewoo jommi na lépp da mu amoon mi ngi ko safoon gëléem gi mu jommi nekk si jàqare boobu wëndeelu wëndeelu wëndeelu ci wëndeelu googu nelawaat na fi ba mu yeewu waatee gis gëléem gi ci wetam mu tëb sara xolle ni yàlla daal may sa borom yaay sama jaam ni kontaan gi mu kontaan ba jaawale yàlla ni ko yaay sama jaam may sa borom yàlla moo gën a kontaan waa jooju su jaam dafay bàkkaar di tuub si kanamam kon nañu leen di tuub delloo xel yi ci yàlla li ci nekk si ngëneel it mi ngi koy nettali xadis boo xamante ni buxaari ak muslim a ko solo waa ji agresseur la bu mag a mag a mag raykatu nit la dëkk ba mu nekkoon di fa dund rey na fa juróom ñeent fukki nit ak juróom ñeent xanaa nag si la commencé tiit laajte kan mooy aalimu dëkk bi borom xam-xamu dëkk bi yóbbu ko ci benn borom xam-xam mu ni ko man de dama def ay bakkaar yu bare rey naa juróom ñeent fukki nit ak juróom ñeent ndax yàlla dina ma ko baal kooku ni ko yow de yàlla du la ko baal mu yëkkati rey ko muy téeméer demar seeti keneen borom xam-xam ba fa des xanaa soo ñëwee sax soo ko laajee mun la yow yàlla dan la baal ndax ragal ku fa rey mun ko rey naa téeméeri nit ndax yàlla dina ma ko baal mun ko dan la ko baal kay wante du la ko baalee fii ni ko yow réew mi du sa réew da nga war tukki génnal réew mi nga dem ci bërëb sàngam nga di fa jaamu yàlla rek yàlla dina la ko baal waaye daal laxasu nag tegu ci yoon wi dem ba ci diggu yoon wa feebar diggal ko mu am malaise daldi dee ñaari malaaka ni jamee ci saas malaayikatu rahma wa malaayikatu azab malaaka yërmande ak malaaka mbugal di xëccoo néew bi malaaka yërmande naan ko kii dafa jógoon di tuub yàlla nangul la ko tuubam malaaka mbugal ni ko reykatu nit la mësul def lu baax yàlla yónnee beneen malaaka si jëmmu nit mu ñëw lu xew ñu ko kii de moo dee mësul baax nangam nangam mu ne mesurer leen dëkk ba mu jóge ak fa mu jëm su dee fa mu jóge la gën jage tuubam sellagul yàlla nangu ko su dee fa mu jëm la gën jage nga xam ne tuubam yàlla nangu na ko ñu natt ko ndekki dëkk ba mu jëmoon sorewu ko woon malaaka yërmande daal di jël yóbbu tabarakallah nga xam ni kon waa jooju rey téeméeri nit fas yéene tuub ak li mu def ci gravité ni mu gravé ba mu yéenee yàlla mottali na ko yéemeen kon nag soo dee dund dara jotugu la tabarakallahu nga di ñaan yàlla mu jéggal la sa bakkaar jéggal sa ñaawteef li yàlla di gën a mere nag mooy ñan ki toog tey bakkanam di def lu ko neex du tuub du rëccu du dellu gannaaw ba tëdd feebar ba AVC ñu naan ko wax la astafirullah mënu ko wax yàlla neen kooku bokk ci de déedéet nee na tuub du ko nangul koo xamante ni bañ lay wax tuubal da nga lànk ba sa diggante ak dee ñëw na nga naan astafirullah tuub ilay c'est trop tard kon nag fii ñu toll tabaarakallahu di yaakaar dund na ñëpp boole seen soxla di tuub seen bakkaar te di jéggalu yàlla nañu yàlla xool bëtu yërmande sànguñu malaanu sutura fi diini wa dunya wal axira jéggal ñu sunuy bakkaar yu jëkk ak yu mujj yu feeñ ak yu làqu yu ñu tey gi ñu teyul ak lu bakkaar ba rëy rëy ak lu bakkaar ba ñaaw ñaaw yana ñu ko yàlla baal allahuma jacal jamcana hada jamcan marxuman wa tafarruqana min bacdihi tafarruqan macsuuman wala tajcal fiina wala macana shaqiyan wala matruudan wala maxruuman biraxmatika ya arxama arraximin
ñoo ngi leen di yeesalaat julli naafila bi nga xam ni yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp koo xam ni guddi laylatul qadri julli na si ñaari raka raka bu ci nekk gannaaw alfaatixa nga jàng qul huwa allahu ahadun juróom ñaari yoon boo sëlmalee wax astaghfirullah wa atuubu ilayhi juróom ñaar fukki yoon yàlla maa ngi laa jéggalu maa ngi laa tuubal julli la goo xam ni képp ku ko julli fa nga toog yàlla subhaanahu wa taala dina la jéggal sa bàkkaar jéggal sa ñaari wayjur yebal malaaka sa aljanna mu tabaxal la fa kër bu ràññeeku malaaka di la rooseel garab yi te doo génn àdduna te teguloo sa bët ci boobu lay ngëneel yàlla bu mu ump jullit moo waral saxaaba yu tedd yeeg ulama saalixuuna yi di ko naafila ci guddi weeru koor gi yépp di ci yéene màggal laylatul qadri ñoo ngi leen koy dénkuwaat ànd ak di ñaan yàlla mu dolli ñu kàttan ba ñu matal weer wi ak suñu sago te mu nangul ñu ko ak mboole seen jullit ci mbaaxam ak yërmandeem subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu